mbokk yi jëye ju metti lañu daldi nemmeeku ci yoonu poroxaan wi talaata jàpp àllarba ci guddi ci bi 23 heures di jot ñaari oto yu daje benn oto Mbàkke Touba bu jóge woon Touba ak benn bus Tata bu jóge woon yoonu poroxaan ñoo daje ci Jurbel ba jamono jii ñu waxe yéen ay bakkan yu bari daldi na ci rot ñu bari am ci ay gaañu gaañu jamono jii nag jafe na lool ngir ñu mën leen a xaymaal limub ñi ci ñàkk seeni bakkan waaye lu ñu leen mën a xamal daal mooy ñu baree baree bari jot nañu cee faatu am ñu ci am ay gaañu gaañu yu metti lool ci ñi ëpp ci ñi faatu nag ñi ngi nekkoon ci mbàkki Tuuba bi ndax dafa yeboon ba fees bus tata bi nag ña ca jotoon a nekk ci aw nit bariwuñu lool daañu leen toppal information bu ni mel